mu am solo ci fànn yu bari fànn bu ci njëkk mooy fànn bi nga xam ni ñu ngi waajal gannaaw bi nga xam ne am na yeneen association yu jël xale yi yóbbu leen ci ay euh, camp de vacances organiser ay activités euh, de loisirs activités atelier de sociale wala atelier de d'art nga xam ne dañoo bi xelu xale yi ñii nag ñoom ñu jël waa waajal école xam ne ñëpp xam nañ lan la école bi waajal xale ci ouverture mooy lan waxtaan ak parents yi te ñuy war a téye xale yi waxtaan ak aussi enseignants yi ñuy téye xale waxtaan aussi ak xale yi ci ambition yi nga xam ne am ëllëg ñoo ko yoreen sa mooy dañoo war a jàng pour réussir beneen bi aussi mooy booleen ci activité de santé mooy activité sur le secourisme xam nañu àdduna ñaari yor mooy éducation ak santé nit ñaari moo ci manqué rek doodu doon nit ku mat euh, ñetteel bi mooy euh, ñi ngi def social mooy dañu fexe parents yi nga xam ni seen loxo jor seen ginnaaw ñu jàppaleen ci ay kit scolaire donc lu muy am solo ndax ëllëg réew xale yee ko yor donc ñun dañuy dem baleen fi te avenir jeunesse bi ñun ñoo leen war préparer bi jeune ki ne daan wax ni nit ki neel xool li nga bul xool li sa dëkk defal mais xool li nga defal sa éducation bokk ci ndax ndaw bu juddee ci dëkk dafa pouvoir public yi ñoo yor éducation ba mu mat li mat na boobaa nag boo amee ba am expérience jàng am am diplôme boobaa la ñuy xool lan la war a indil dëkkam mais nag éducation réew mi éducation gouvernement moo ko état moo ko yor donc lu am solo lépp lu ma ci def ren incha allah rek déwén allah naa def ñaar wala ñett ndax moom ëppal solo yeneen organisation yoo xam c'est juste euh, mën nga wax ni foo la yi nag dafa jël avenir dëkk bi mooy lan mooy xale yi ndax ñun dañuy dem ba leen fi te dañ leen war a préparer situation yi ñuy def nag mun remercier mukk ba mu doy ndax li ñu def nii muy volet éducatif yi man nga ko dëgg yàlla fu ma ci woy lu ma ñàkk ñàkk jot naa ci ñëw leneen nag xëy na moom mun naa bañ a mais lii moom képp kuy def association ci Médina ci volet éducation je mangage à les aider sur mes propres moyens li ma mën lépp naa ko lu ma ci ren xëy na jékkoo ma ko ni ma ko bëggee mais doon incha allah naa ko teel a waajal def ci li ma mën lépp jërëjëf.